déglu ma benn conseil mom la koy jox man en attendant nag xoolal karawu ndog mom bul mako indi. ay dégg wàcc waaw eh musta wax lu ndaw. na set witti witti witti ba ñepp xamne xolal yow ak fay moom seddutoon. pièce par pièce la lay indi. kat api bu mako indi jëlal ma rek fas dem xew nii bàyyi ma fi man dong. da am luma la waxon jek tok ci sëyam la momé mo son bu de ay man suma len ma ngeen wara xam lan la leen di doye. sa bëss ba. leneen bokkut fi ñu toll nii lu may wax lu ne waxi bés bi laay wax. Ah, dégg na léegi nag xam nga laa leen di xamal bukki am na almet àll béppay leer. tey lépp lépp di leer. du yomb la laa ay ñu kontaan nañ lii. man naa leen rek doon laaj. waaw. million ngi nii. birig. wax ya, man bal suba la ilaha illallah sama xale boobu ñu ma ndayale woon xale bi la ndayale woon ki ma waxtaane dafa am doom ah dafa am doom ah, alhamdulillah léegi nag ñu war ko xewal te xam nga rek man ci ndeyu mag yi laa bokk foofu war ada fa mën a def lu rëy doon nga ma wax naa ma ci ndeyu lay mag yi nga bokk ma ne woon nag naa fi ñëw waxtaan say yow jigéen ñi moom dañoo bëgg xew gis nga dañoo bëgg xew de mais yi nag jeew àndala sa xel fi ne jamono ji dafa metti te yow umpule bu njëkk réew mi ak léegi bokkul. bi sax fayoo ko. damaa jóge banque ñëw sonn travaux ñi xale yi nekk ci ginnaaw di liggéey naan koc kocc mën xaar ne ma dem ci courant bi ci ginnaaw. waxal ci wax ji banque ku fa jóge am nga xaalis waxal. yow bëgg yàlla ma jox ma sonalut. laaw la cet ci sama doom ci rëccu ma lu ma doon rombee buntu kër yëpp ñëw ci moom boo ma gisee sax xam ne namuma laa. yow rek yaa baax ndax xale yi léegi sii képp ku toog bay wax seenu baax rek ci yow mii la nekk. ndax soo ci xooloon lu bon rek gis ko ci. di ngaa dégg sa waay. Ibu non non démb ci ngoon. déggante nañ lu yàgg si téléphone bi dëgg déggante nañ lu yàgg. voilà ah, macha allah merci. <laughs> mais comment kan moo doon létt bi. ah lii sama benn ah, mais noonu dafa sedd bi. ah gis nga rek comme d'habitude. Hmm. Mhm. mais sedd bi am naa yaakaar ne boo ci amoon mbaaraamu ñaar ñoom la gën ci woon. <laughs> luy loolu. c'est-à-dire comprendre. non maa ngi Sénégal. je pense que jàpp naa ma nekk fi ak di nekk fi yëpp benn la